الفصل السادس في ذكر تزويج عبد الله آمنة أمه صلى الله عليه وسلم آمنة أمه تزويج عبد الله آمنة أمه صلى الله عليه وسلم وحمل أمه معناه وفي في ذكر حمل أمه am ba ñaata weer laag nan laag lan la ca daan gis ak sallallahu alayhi wa sallam wa mawti walidihi dana ci tuddaale deewu baayam abdallah ak fan la deexee sallallahu alayhi wa sallam wa murdaatihi dana ci tudditam jigéen ña ko daan nampal ci ngoneem ba mu feragul ñan la wama wama raadi wama raadi wa muraadiihi ak ña nampoon ak moom ñan lañ wa xawaadinihi ak ña ko daan yore di ko yore yore ngone xabaana mooy yore gone yaa ngi koy boot yaa ngi koy leew yaa ngi koy jox ñam loolu mooy xabaan ah, danañu ko waxit maana xaatin danañu ko wax daaya daayatu wa qad waradat hadihi alkalima fi hada fi hada wa ma yataallaqu bi dalik ak lu jokkaloog yooyu daal wa abdu muttalibin wa abdu muttalibin min baadu marra ila fatati zuhrata zati almajdi walkarami مرا على امرأة تدعى بفاطمة تبغي الممال إليها وهي لم ترمي و وحا وعبد الله وعبد المطلب من بعد غناو خيو خيو يي خساتو أصحاب الفيل نينو مرة كونتيني وينا gannaaw fi mu doon bëgg a rey Abdallahi te defu ko nee na gannaaw gu daal moo xam nag yàlla xam nu jamono ja toll marra continué na ila fataati zuhrata jëm ca soxna sa fataatu mooy ndaw lu jigéen boo amina ndaw lu jigéen la jëm ci fataati zuhrata na ndaw lu jigéen as bani zuhra famille la ci quraysh zaatil majdi ka doon borom tedd nga wal karami ak i tedd ngay majdi tedd ngay daraja karam tedd ngay jikko marra alam ànd ak abdullahi doomam marra ala imraatin tudaa bi fatimatin tabgi lmamaala ilayha wa hiya lam turam marra dañu bokk romb moog abdallah ala mraatin ci seen soxna tuddaa ku ñuy tuddee bi fatima la tudd moom ki ñu romboon fatimatu la tudd bintu murrata bi damil miini wa shaddira fatimatu bintu murra la ñu romb ci qurashiya la tabgi muy sàkku wala xam naa ko bañ askani fatimatu bintu murrata la ñu romb moom nag jigéen la jooxaane kaana taqraul kutub ne nañu xamoon na daal xisay yu tax mu yaakaar ni kii mu gis yaakaar na ci moom ak mujj gu am solo mu bëggoon nag moom ah fexe ba nekk di jigéen ja koy muurloo moom la ni tuddaa ñu di ko tuddee Fatimata bintu bintu Murra aywa نعم وقيل رقيقة ويقال ليلى العدوية وقيل قتيبة بالتصغير nee na tabxi muy sàkku almamaala jengug abdallahi ilayha jëm ci moom waxye te moom lam turam sàkkoosu ko moom sax kooku tangi jaahiliya la uh, xëy na wutu ko woon ci sëyub yoon sax bu sharia maanaa àndu góor ak jigéen rek nee ñu la wutoon ci moom ndax loolu xëy na lee ku ne ci jamono jaahiliya garaawal ko ah, abdullahi gàntal ko wax na ko foofu ca la ay abiyaat arab way da leen ahlu siira yi danañ ko nettali nee na ko amma alxaraamu falmamaatu duunahu waye di ko fi defe وكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الكريم عرضه ودينه mu ne ko amal xaraamu ama xuus ak yow ci lu daganut xel ma maa tuddoona xoo dee dee sax yées na loolu waaw maanaa dee bala loolu xew moo gën wal xillu bu dee lu dagan laa xilla genn dagan amul sunu diggante fa astabinahu ba may birlu loolu wa kayfa bil amri na tabginahu nan la ci taxe ci mbir mi ngay sàkku na muy mën a amee gannaaw du ma def ak yow lu xaram te itam dagan amul sunu diggante yaxmi day xaar alkarimu ku tedd diinahoo irdahoo deram wa diinahoo diinam te loolu naka njëkk arab ñii oqalaa ba ñu amagul lislaam it daanañu ko ñaawlu ñu tedd ñu baax ñi dëgg daawuñu ko di def وحاز إذ ذاك عبد الله سيدنا حدوا إلى الخير نافي الضير والنقم وحاز لقنا إذ ذاك بوبي نكوي تكال آمنا موم عبد الله سيدنا لقنا حدوا لمحدو حدوا فكل أجرم يتكي أب بحساب الجمل haa juróom ñett daal ñeent fukk ak ñaar waaw juróom benn làq na booba fukki at ak juróom ñett dégg nga xadwan ilal xayri waaye baatu xadu xadaa yaxdu xadwan muy jiital jëme barab sàngam xadwan ilal xayri maanaam booba yàlla jiital na ko jëme ci yiw naafi dayri di aji dàq ji lor wan ne xami ak i mbugal lu lu taxoon mu jëme ko foofa li kay yusayiraha sadfan li durratihi aminatun naqiyat an saa'iri tuham li kay yusayiraha ndax mu def amin sayiraha jaalaha de li ngir mu bëgg a def amina moomu muy takk sadafan mu di sadaf ëmbukaay li durrati yi ñeel loolu am loolaat sadaf xam nga mooy ëmb xaalis ci géej aminatun amina sa durratu bi moo doon nabi alayhi salaatu wassalaam mu bëgg koo def yaayu doomam ju nga xam ne moo mel ni durra aminatun naqiyat set na wecc an saa'iri tuham ci mboolem ay tuuma yu ñu war a tuumaale jigéen jamono. ngeen bëgg a gis yeneen vidéo yi